Impro TV la chaîne du renouveau. jërë ngeen jëf mbokk yi xeet yéen ñiy à travers Impro TV la chaîne du renouveau gannaaw ba mu leen nuyoo char leen joxaat leen seen wàccuwaay baax a baax. ñu ngi fii nag diwaanu Kunun toog koo xam te ni tur wi sell na lool muy Serigne Fallou moom mi nga xam te ni bokk na ci ñi nga xam te wala bokkoon na ci ñi nga xam te ni kat ñoom la arrêté woon lors des manifestations yi nga xamante ni amoon na fii ci Sénégal donc mom bokkoon na ci ñi nga xam te ni jàppoon nañ ko. pendant des mois libéré nañ ko mu daal di ñëwaat fi nga xam moo di këram fekk si waat soxnaam fekk si waat ak njabootam fekk si waat ak yaayam ak ay am ak yëpp donc tey moom la ñuy defal benn waxtaan bu ndaw mu waxtaan ak ñun ci condition yi nga xam moom la ko gars yi jàppe woon fu ko jàppe woon lam fa nekkoon ci prison boobu nekkoon après son euh, libération aussi ak yéen kàddu la ko gars yi yëkkati nettali ngi nii maa ngi nii yéen a ngi nii sur MPROD TV la chaîne du renouveau maa ngi lay nuyu waaw ñu leen di nuyu baax Euh, di nuyu Mprod TV bi mm-hmm. di kontaan bu baax si taxawaay beeg liggéey bu am solo bi ngeen def. Mm-hmm. di leen jaajëfal. Mm-hmm. jaajëf Fallou nga nekk koo xam te ni bokkoon nga si ñi nga xam te ni arrêté woon nañ leen ci manifestation yi nga xam te ne amoon na fii Sénégal di dem ci wàllum politique est-ce que mën nga ñëwaat tuuti rek en arrière ci jàppe gi nga xam te ni moom la la jàppe woon fan la la jàppe woon exactement. waaw loolu moom man naa nekk parce que fi ma jàppe woon ngi ma fekkan tënkee si juuti ba. juuti ba côté boobu lañ ma woon. Euh, xëy na dañoo localiser sama téléphone wala yu mel noonu. Mhm. pour jàpp ma. Mhm. foofu lañ ma jàppee tey. foofu la jàppee woon donc bi doon nga dañoo localiser woon sa am loo def woon. Mhm. ba tax ñoom la. dalaa fekk ngay dox dalaa fekk ngay liggéey ba bokk nan la la jàppee foofu. waaw parce que ni ñu ma jàppee moom dama wala xëy na ñu jàppee nu leen neex comme ni ñuy jàppee rek. parce que dañ ma fekk may dox. kenn ñu ñaar ñu sibi lu ñëw dóor ma mhm. ñoo xamante ni dañ ma dóor mhm. ma ne pourquoi léegi na dóor bu ñu ma dóor ma ne jàppante ak ñoom mhm. suñu biir jàppante yi ñuy jàppante si la ñeneen daw ñoom si la nag police ñëw ma xam ne sol nañ tëni si laa leen taalal loxo ñu jàpp ma bi ñu ma jàppee ñu torturé ma def lu leen neex amul benn torture boo xamante moom def na torture bu lu gën a bon si torture bu nekk def nañ méthode bu nekk def nañ ma da nga demone ci manifestation da nga mos dem ci manifestation wala da nga mos nekk session bind wala nga wax lu ñaaw ba tax nga jàpp ne la localité ndax ni la jappé nee nga mhm. da ngay dox bu mu yag ñaar ñew dap la door la nga commencé jaayante ñoom doole ñeneen ñew mhm. da nga mos bind da ci réseaux sociaux wala da nga mos dem ci manifestation wala nga am vidéo bu mos def dem ci walu wax lo xam waroo ko wax ba tax ñu ay la wala nga jàpp ne la localité waaw parce que man mom man Pastef laa bokk mhm. su ma gisee ñuy def insistance di fi tek man damay bok ci sénégalais yi jog di ko xex mhm. ndax parce que man dama bok ci sénégalais yi nga xamanteni mënu ñu nungu injustice mhm. lolu duñ ko supporter mënu ñu ko supporter ta mhm. mënu ñu togi tamit diko sétane même bu doon tan parce que doon kenen ñun dañu mënu tok di sétane injustice yu koy tek nit doom adam ba ba mu far ëpp parce que liñ koy tek buñ toogee ñun diko sétane buñ toogee diko sétane ci suñ kaw la jëm ci finalement lolu mo mujjé am ñi toogan di seetaan ñoo ëpp si prison yi. ñoo ëpp seetaan ñoo ëpp si prison yi. donc ñoom biñ jàppee wax nga ko sànq sa biir wax façon torture bi nekk torture la ko. Mhm. fi la jàppee fa la doon fa la ban la yóbboo. gendarmerie non biñ moom biñ ma police ñoom laal bi ma. Mhm. mais si yoon bi nga mhm. luñ ma defut parce que ñu ngi ma jàpp 6 heures. presque ay 22 heures. 6 heures 18 heures 18 ah, heures ba 22 heures ba 22 heures yaa ngi ci oto bi maa ngi ci oto bi amut luñ du def dañoo dem ba ñoom ba sonn mhm. dañoo torturé ba sonn mhm. bàyyi ma bàyyi la ah. bi ñu yóbbu boobu tamit man doo nga jàpp yow da nga jàpp mhm. bi ñu yóbbu police Tëngéej lan lan la wax moom la la jàppee bi ñu ma yóbbu police Tëngéej dama ne leen lan ngeen ma jàppe man maa leen posé question ma ne lan ngeen ma jàpp ñu da nga doon manifester ma ne ndax da ngeen maa fekk ci terrain bi ma koy def parce que ñu ne ma fa nga jaar dafa amoon manifestation wala yu mel noonu ma ne ah, man bu fekkee na fekk ngeen ma si terrain bi ma koy def sax wurul leen man tuuti hmm. bu fekkee ne yéen da ngeen fekk jàpp ma si ay xeer wala ngeen jàpp maag leneen moo xam ne maa ngi que jàpp naa ne nit bu defee hmm. nga ne dafa def boo ko jàppee da nga koy jël nga yóbbu ko bu ñu demee naa ne daan yi ñu koy teg hmm. moo ëpp so moo moo gën a metti torture yi nga koy def parce que torture yi nga koy def benn fan nga koy def après day dem yoonam day na wér delluwaat si sagoom mais jàpp naa ne yoon fi nga koy yóbbu bu defee yoon bi nga koy teg yaakaar naa ne moo ëppoon solo nga koy dóor di ko torturer parce que nit la comme yow. te xaalisam moom moo lay fay. moo lay fay ki ngay dóor moom moo lay fay. moo lay fay li jàpp ñu ngi la jàppee juuti ba. Mm-hmm. bés bi ñu lay jàpp foofu dafa amoon manifestation wala da nga xeer wala bokk lan nga doon def juuti ba gars yi fekk la jàpp la fa. waaw ah, dafa amoon. dafa amoon foofu dafa amoon foofu. ok manifestation dafa amoon foofu mais dama jàpp ne doomu adama bi. Mm-hmm. boo ñëwee di ko jàpp te fekkoo ko si terrain bi. Mm-hmm. muy manifester amul benn preuve na doon manifester waroo ko jàpp. yow da nga demoon ci manifestation wala nga taxawoon. non man dama demoon ci manifestation. ci nga demoon moo taxoon hmm. ci laa demoon. ba nga demee tamit ay police tëngeej ñoo la jàpp ci manifestation. Hmm. nga wax leen kàddu yi nga leen wax. ñaata mois wala boog ñaata heure ñaata jour wala ñaata semaine nga def ci police bi. non si foofu def naa fa presque cinq jours. cinq jours police tëngeej def naa fa police tëngeej. Hmm. waxuñu la dara. waxuñu ma jël nañ ma yéegal laaj ma li ñu lay toppee ndax yaa ko def ma ne bu dee manifeste bi maa ko def. Hmm. mais amul leneen lu nga xamante ni fekk ngeen ma ma yor loo xamante ni luy taal dëkk bi la wala loo xamante ni day yàq dëkk wala da ngeen ma fekk may sàcc wala leen. Hmm. parce que nag jàpp ne manifeste suñu droit la bokk. Hmm. suñu constitution yi si boppam moo ñu ko nangul. te dañoo am droit rek yëgal leen ko sax. mais waruñu ñoom waruñu ko tere même bu ñu autorisé wut sax waruñu ñu ko tere. mën nañ see maandu wala ñoom ñu yëg ko ah, li gënal si manifestation yi ñuy def nag bu ñu encadré woon ñu def suñu manifestation mm-hmm. dara du xew damay xamal ne maanaam ñëpp ñuy seetaan ne mm-hmm. li xaw ñoom ñoo koy indi parce que ñun duñ du ñuy ay yàqkat dañoo mm-hmm. yor suñuy liggéey yor suñu soxna dem di liggéey di dem di ñëw dara yàq nekkuñu si te dara luy ñaawteef tamit kenn ñu ko si mhm. kon bu ñu demee tey ba ñuy ba ñuy gis kuy manifester ñu koy torturer ba ñenn ñi di si dee mhm. leneen di si am ñii ñu torturer leen bañ sonn mhm. loolu mën na ñàkk te si réew mu am démocratie war nañoo romb foofu cinq jours nga def police bu Tëngéej waaw gannaaw cinq jours yooyu fu la yóbbu ñu ngi may yóbbu parke lañ may yóbbu ñu ngi may la ñuy yóbbu registre de parquet euh, police centrale police centrale Mhm. bi nga demee police centrale ñaata ah, jour ngeen fa def am naa fa une semaine. une semaine nga fa def naa fa def euh, waaw xanaa metti parce que boo demee ba nga jàpp ay nit chaque jour nga leen di menotter comme ay jaam. nga mhm. leen di yéegal di wàcce mel ni dañoo def ay criminels nga jàpp wala ay lan nga jàpp. Mhm. chaque jour nga leen di indi tey suba nga yóbbu leen baax na ñun dañoo demoon ba yaakamte ñun ñu siise ñu. maanaam ñu yóbbu ñu. ñu mandat dépo ñu wala ñu xool ñom ni ñu def wala boy libéré nga libéré mais nañu nañ ñu man limi gëna na a sax moy nañu def nañ seen mandat dépo lañ doon xaar. Mhm. nañ ñu ko def ben yoon ñu dem tëdd. Mhm. ba kare ñuy tëdd liñ tëdd yalla dogal mu jeex. yow keroog bi ñuy jàpp tëngee juuti ba wax nga sa biir wax yow kessa lañ japp man kessa lañ japp bi la jappé yow kessa sa xel teyul wala amoo leen lo xalat non lool motax na sama xel nak dem ne ñii xeyna peut-être parce que man passé laa bokku mhm. damay waxtaan ak ñeneen ño xamanteni dañoo bok ci parti bi di waxtaan ak ñoom mhm. mais waxtaan gi may waxtaan ak ñoom amul dara yaax mhm. parce que wax deug fa yalla man séentu ma woon ne dinañ agsi fi quoi parce que wax luy yaax wax ñoko won luy defar ak li nga xamanteni mo ñu yobbu fi bëgg loolu lañ doon wax mësu mhm. ñoo wax lu bon wala ñi wax lo xamanteni day yaax day yaax waaw ba ngay dem ci manifestation ba ndax wa kër gi xamoon na manifestation nga dem soxna ci ak sa yaay wax ñeneen ndax xamoon nañ ci manifestation ba nga dem waaw parce que man nag yooyu du ko faral di di leen ko wax. Mhm. du ma faral di leen ko wax. da nga génn rek dem. waaw dama jàpp ne ñoom xëy na fi fi ma mën a dem ñoom mënuñu fa dem. Mhm. te kenn kuy dem si yenn yi di tàggoo doo dem. doo dem mhm. mais ñoom biñ la arrêté. yow yaa leen woo wala police leen woo ne dañ ma arrêté. non man maa leen woo. dañ ma arrêté ba suba laay soog sama yaay. daa koy expliqué na dañ ma arrêté. kon fanaan nga fa pare doo ko woote. waaw fanaan naa fa pare. soo ko wootee parce que heure bi ñu may indi noonu mënu mayuñu ma ma woote. Hmm. mënuñu ma woon may possibilité pour ma woote. sa téléphone mi woon ci ñoom. sama téléphone bi tamit sama téléphone moom dafa wàdd. dafa waddoon waaw dafa wadd waaw période boobu. bi nga demee fi nga xamante ne moom moo di police centrale. waaw bi ñu demee police centrale. Hmm. loolu lañ doon dund di ñu njëkk di ñu jëlee tey suba ñu indiwaat ñu indi ñu parquet retour de parquet yu bëri dañ hmm. am parce que lu ma suma juum man def nañ quatre retour de parquet yoo xamante ne waaw def nañ mu doon loo xamante ni man rafetlu ko dara dara si démocratie bu Sénégal. Mhm. parce que dama jàpp ne Sénégal war na dépasser niveau bi mhm. ñu nekk. bi la jugé waaw bi la jugé. Mhm. fan la la jugé kañ la la jugé di Moïse. Euh, ni mooy euh, quatrième kii bi revue de parc bi. quatrième bi noonu nag si lañ ma si lañ ñu soog a jël ñu def ñu mandat dépôt. mais wax dëgg fa yàlla mbay ma doonoon lu ma xaar lu ma xaaral la. parce que gis naa ni doon doxalee. parce que dañuy dem ba lay laaj yow. di la laaj ba xam ndax Ousmane Sonko nga wala keneen. avant ñooy def mandat dépôt. waaw dañuy dem ba lay laaj ndax yow dangay ñëw naan ndax dangaa bëgg Ousmane Sonko affaire man sama tontu xam naa côté boobu da man neex moo tax. Mhm. moo tax ma séntu woon ne dañ may. dañ may parce que da doon wax li am. dama doon wax li nekk. Mhm. bu ñëwee dama naan Ousmane Sonko ma ne waa ah, moom la parce que ndax crime la fi. Mhm. dangaa bokk parce que ma ne ndax crime la. question yi bëriwut mu ne ma signal ma ne ko lu may signal mhm. ma xool yi may doon toppee tamit mu bëri torop mhm. lu mat set occupation la ma doon topp set waaw nag ma ne est ah. xam nga ko waaw am na ci ma si xam am na si yoo xamante nii sax soo jour boobu laa bi soo ko dégg ban ak ban nga ci xamoon yow waaw doon trouble à l'ordre public mhm. manifestation non autorisée ak yeneen ak yeneen ñu moom la yeneen la ma doon toppee donc ñu def la mandat de dépôt combien de mois euh, sept mois ñu yóbbu la 100 mètres. ban chambre nga nekkoon 100 mètres. maa chambre 9. chambre 9 nga nekkoon. ban jour nga dugg 100 chambre 9. waaw maa dugg foofu le 7 8e mois laa dugg foofu. le 7 8e mois. nga fa dugg. Mhm. donc chambre 9 ba fa njëkkee dugg sa premier guddi. Mhm. chambre 9. avant loolu. Mhm. avant loolu dafa am lu ëpp solo ni fi ngay la direct jaarale seen benn rox boo demee foofu ñu summi la ba nga set. avant ngay dugg si biir chambre bi. waaw avant ngay dugg si biir chambre foofu la ñuy jëlee liste yeeg yeneen ak yeneen. Mhm. bu ñu ñëwee dañu lay summi ba nga set. nii comme ni sa waajur jure woon. sa waajur noonu lañ lay summee. Mhm. dañ lay saqatloo sa tànk yi sax dañ la koy ubbiloo maanaam façon torture boo xam dañ lay ubbiloo sa tànk yi. maanaam da ngay def écart. waaw si gàttal ko si rafetal maanaam dañ lay sëggaloo sax. Mhm. di la wax saqatal. pour nga pour pour ñoom pour nee nañ nag question de sécurité la wala yu mais loolu moom ak sécurité mënta àgg foofu parce que nit ki doomu aadama bi jàpp naa ne boo ko jàppee war nga ko bàyyi ak au moins benn sax yére boo xam des na si kawam mhm. pour mu ko suturaal mhm. bu si dara nekkee yaakaar naa boo ko làmbee duñ ko gis mhm. jarutoon ñu ëgsi ak foofu bu torox mais foofu la jëkk woon nee na ñu nga kër ak toroxal gi ñu lay indi waaw foofu lañ la koy jëkk a wane foofu nga jëkk a xamee mais man moom tamit dëgg fa yàlla dama dama doon nit boo xamante ni lépp lu ma jóg dem taxaw ne dama koy dama koy xeex damay sooraalee conséquences yi si nekk. Mhm. waaw moo tax bu ma bu ma gisee yenn yi yooyu du métti cent pour cent. du métti waaw donc bi nga jógee foofu def visite boobu daal day futti comme ni nga ko waxee sànq daal day mhm. sumi comme ni nga sa waaju jure woon. Mhm. xool la gis ta cër yëpp xam ne yoroo dara ñu bàyyi la nga dem. bi la yóbboo chambre neuf bi nga njëkkee dugg chambre neuf ak ñan fa fekk. ban réaction nga am. non bi ma njëkkee dugg chambre neuf loolu lu bizarre la <laughs> lu garaaw la lu bizarre lu garaaw noonu. lu tax mu bizarre ci yow. man dama jàpp ne damaa jékki saa ñu gërëmal ma dugal ma si yóbbu ma beneen dëkk dugal ma si ay bato wala yu mel noonu man damay affaire damay dama dafa triste. Hmm. maa ngi gis ñoo xamante ni doomu aadama yoo xamante ni mosuma leen a gis ñàng nañ ñàng boo xamante ni. Hmm. ñii su meeku toog jamonoy tàngoor. Hmm. toog si kaw dàmbaloo yi mu xawee trop affaire bi mu ñëwee. nit ñaa ngi bëri fees ba sa tànk foo ko teg amoo ko vraiment mm-hmm. affaire bi yéem ma trop trop trop mm-hmm. mais comme li ma la waxan rek sama xel bu delluwaatee ne man maa bëgg am ma am lu may xeex rek damay xam ne sa normal tamit mm-hmm. buñ ma teyee tuuti ma mën ko dékku donc chambre neuf wax nga ko sànq mu gi nga duggee mu mel ni beneen mënu nga nekk mu mel ni nekkatoo Sénégal nga xeex gis xaakanam yoo xam te ne mosu leen a gis nga taxaw ñëpp a toog ngay xool ñu lay xool naka nga def ba ba ba mën a adapté loolu jour boobu noonu waaw li ma def ba mën ko adapté parce que boo ñëwee dañ lay ber si seen kaw si benn côté bi fii homme de chambre bi nekk. Mhm. homme de chambre bi moo lay laaj euh, sa tur ak euh, sa sant ak sur mandat dépôt bi nga kii kañ nga fi ñëw. Mhm. pour mu bind lépp. Mhm. chef de chambre bi waaw. bu ñu paree. ñi dañoo ñëw placé wu si côté am. bu ñu paree bu ba pare nag dañu wàcc la yéen ñu wàcc. ñu bi ñu wàccee ñu ñëpp ñu sësoon ñu si dàmbaloo yi si kaw. Mhm. fekk si suuf rek bu ñu wàccee xaj ñu fi ñun ñëpp nga jël leen benn côté. léegi mhm. bi ñu tegee si benn côté bi noonu si lañ toog foofu teewut ñenn ñi ñenn ñi ñu ngi lay commencé naan la ah, yéen a ko yéen. yéen a fi nekk di xeex mhm. yéen a fi nekk di taar réew mi mhm. ma ne ñun ñuy taar réew mi wala lenn ngeen jàpp ne ñun ñooy yàq réew mi ko defar ñun ñooy defar réew mi ah, que ñenn ñi ba nga xamante ni mhm. xamatuñu xew ci xamatuñu la xew dafa mel ni dañ lay contre sax parce que ñoom bëgguñoo gis manifestant yi ñëw foofu xatal gañ leen di xatal day indi metti ba nga xamante ni daanaka boo jógee seen tànk rek wala nga laal juum ba laal si ki kenn rek boo matul mu indi foofu ay histoire yoo wala nga xeex fa wala ñu defal la naqari waaw man moom mosuma fa histoire mhm. mosuma fa histoire parce que dama kiyan dama doon nit boo xamante ni dama am benn caractère boo xamante loolu dama ko sóoraale woon moo tax boo ñëwee damaa yoroon benn comportement boo xam ne fi ma toog laay toog. Mhm. seeg sama lépp mi ngi doon ñëw. Mhm. ñi ma si ginnaaw taxawu ma toog. Mhm. ba lépp di ma fekk moo tax ma ko doon partagé ak ñoom ñenn ñi di bokk ak ñoom jour bi nga jour bi nga njëkkee am visite chambre neuf. sa ñëw wala sa soxna wala benn membre de ta famille fekk la chambre neuf. ba nga génn jàkkaarloo ak ñoom wala waxtaan ak ñoom duggaat. ban yëg-yëg nga am. ah noo yéeg-yéeg bu yéeme rek parce que sama mag moo jëkk a ñëw faatu mm-hmm. moom moo jëkk a ñëw Sambour neuf waa am visite foofu mm-hmm. boo defee visite bi si laa jëkkat jàkkaarloo ak moom mm-hmm. mu doon lu jafe nag parce que boo dëgër boo jàkkaarloo ñoom moom di nga tuur ay xéwal bi nga bi nga yàlla dogal na man moom damaa ba nga xam ne yooyu bu ñëwee sax man maay dalal seen xel yaa demee niiru dara politique la politique yi ñuy indi ni ñu ba tëj ñu noonu la ñuy fexee ba tëj ñu. Mhm. finalement la mujjee demee. noonu la mujjee demee donc nga def 7 mois chambre neuf. Mhm. yan nga def mois nga def. 2 mois laa def après ma soog a nga def chambre def fa ñaata mois 47 si laa def na presque 5 mois. diggante chambre 9 ak chambre 47. Uh-huh. ban nga ci dund jafe-jafe yoo xam te ni kat xalaatoo woon ne lii am na fii. waaw chambre 9 parce que man damay toog koo xam ne damay jàng. Uh-huh. parce si biir prison ba man mënumaa wax. toog naa lu ëpp une semaine bu ñuy kuréel du ma mën kuréel. parce wax sax nit dégg ma ba may toog di kuréel. Uh-huh. parce toog koo xamante ni. bu gisee ko taal cigarette mu daw jóge foofu. Mhm. ñu koy tox di ko yàbbi nii presque que du si man dara. Mhm. parce que dafa am lu leen protéger. Mhm. boo fa xeexee boo demee yow la ñuy torturer. boo demee mën nañ la yàq sax sa àdduna. parce que ñoo ña fa am na ay nit ñu baax mais am na si ay garde yoo xamante ni. daanaka ñoom dama damay yaaka damay dem ba jàpp ne ñii seen ak nite sax man damay yéem trop. te tux mi bi chambre neuf la woon amee. bi chambre neuf la woon bi la génnee chambre neuf yóbbu la chambre 47. waaw foofu lan yéen loo loo fa dund. waaw chambre 47 mu doon nag chambre euh, boo xamante ni moom chambre taalibe la moom daanaka ñii dañuy jàngal xuraan ñii di kuréel yooyu yëpp man bi ma ñëwee foofu laa ne ah kon de xam naa fi moom xam naa fi laay gën a jàppane pour nekk fi. Mhm. finalement après xatutan torop mhm. mais daanaka ay une semaine rek mu fees ba nga xamante ni nit ñi dañuy toog ba ñeen di toogal di leen sësale mhm. mu doon loo xamante ni lu yéeme torop la daanaka ba ni mu fay jógee xataay bu métti laa fa bàyyi. Mhm. xëy na nag jamono bii may xay na mu feex. mais ba ni mu fay génne moom. Mhm. dafa xat torop. dafa xat daa àggalu si lu ngeen waree tëdd naka ngeen tëddee foofu. bu ñu waree tëdd parce que matelas boo xamante ni un lay doon yaatuwaay bi. benn matelas mu ngi fa. waaw maanaam matelas yu bëri la mais kenn ku nekk. Mhm. matelas yi bu un mètre la matelas yi doon. guddaay bi lay doon deux mètres. mais ñaari matelas yi bu ñu ko teg bu ñu ko tegee yaatuwaay bi. un mètre trente rek lay war a tolloo. mais si foofu noonu jàppal na huit personnes dinañ tëdd. si si matelas maanaam ñaari matelas yi buñ ko sësalantee ba mu mat un mètre trente yaatuwaay bi. Mhm. guddaay bi moom deux mètres la lu lu nga laal mais un mètre trente bi si la ñuy tegee matelas laay ba mu mat un mètre trente. Mhm. léegi nag dañ koy def huit personnes ñoo tëdd si côté si biir. Mhm. huit personnes la ñuy tëdd fi ngay fi nga tëdd bis boo xasee ba jóg boo safee saw wala nga def leen ba jog sa tànk bi boo ñëwaatee du am foo ko teg. boo ñëwaatee doo fa tëdd. doo fa tëdd doo fa tëdd. da ngay obligé placement bi nga tëddee xool foo mën teg foo mën toog rek ci kaw nit sax ngay toog foo mën a cos toog foo rek. Hmm. ba après même boo xasee ba jóg moom saye parce que xataa na xat boo xamante ni. Hmm. boo jigéen nit ñi dinañ am yéene sax yow nga dugaat mais duñ ci mën dara. Hmm. duñ ci mën dara xanaa leer na mooy tax nga mën dugaat mooy ñëpp yeewuwaat puusaat nga mën a. xool ñu nuñ la mën a placé waatee te pour nga placé wu da ngay tëdd si kaw nit ñi di bu wax di bu wax di bu mhm. wax di bu wax di bu wax ba kere ngay solo mën ngaa tëdd fanaan ba bërset doo àgg si suuf mën ngaa suuf ci kaw nit ngay tëdd ci kaw nit ngay tëdd foofu anaka si kaw nit tëdd si kaw nit ki dul la dóor wala ñu wax la kàddu yoo xam te nii dina la métti mënoo ci dara waaw day am day am mais parfois tamit da ngay dajeeg ñoo xamante da ngeen a bokk gëm-gëm bi léegi ñooñu dañuy xaw a donte ne di nga tëdd si kawam da ngay dem ba nga xamante ni ñu bëri si nañ amee ay problème bu ñii ñaan ñi bu ñëwee foofu dañuy fatt dañuy fatt waaw parce que dafa xat amoo woon benn problème fatt bi wala problème tànk wala boog ay taab wala nekk leen ba nga fay doog a nekk ah kay mhm. da ngay génn sax jàkkaarloo nit mais boo génnee gis keneen tamit da ngay bàyyi fàtte wax sa bopp parce que moo la gën a gaa yi a métti affaire lay doon am ñoo day génn ba si génn seen kanam yi ba daj mhm. ba yow boo leen da leen di sax doo da nga leen di yërëm mais da nga tamit doo leen bëgg a jege. Mhm. parce que da ngay xam ne feebar boo na nekk foofu. est-ce que doon leen indil ne mhm. mën moom bala a dee bu demee bañ naan mi ngi dund mi ngi dee su leen lay soogu faj sinon ay paracetamol lañ lay jox. kese bu boo boo demee ba bëri fay tànk ñu boole si benn doom ba xaw jox la. Mhm. waaw loolu moom mooy tax ñu faj. ñu jox la ko donc sa deuxième visite par exemple wax nga sa première visite ki ñëwoon ci yow sama bu jigéen la. Mm-hmm. sa deuxième visite bi ñëwee fekk la nga am ci taab yi wala boog nga am problème mu tànk wala nga am beneen comportement. Mm-hmm. ñoom nu ñu ah, dafa yàlla dafa doyoon samay taab yi fi ma man samay taab yëpp dafa nëbbu. Oh. sama kanam duñ ko xam. Mm-hmm. te suñ ñëwee ma mujj dalal seen xel te mosuma leen ko tamit nu nga yëgal ne fi ma nekk am naa yi yii wala dara. ñëwee daal dinaa waxtaan ak ñoom. dalal seen xel ne leen lii politique la politique moo koy lijjantiwaat. Mm-hmm. du loo xamante ni da ngay dem fay ay avocat mm-hmm. lu bëri wala ngay dem aussi seen wala yooyu yooyu moom dama ne bu ngeen demee ngeen toog ngeen noppalu si. Mm-hmm. li ñu fi dugal dinañu fi fi génn. man euh, la mujjee dem. donc nga def sept mois. foofu ca. 100 mètres. def 2 mhm. mhm. mhm. mois. chambre 9. def 5 mois chambre 47. waaw donc nga def fa 7 mois yoo xam te kat yaa ngi ci 100 mètres. bii 5 mois nga def ci chambre bi bii 2 mois nga def chambre boobu donc nga dund fa la nga wax léegi ne mu nekk dund bu tar boo xam te ni xalaatu woon doomu aadama da fa dund donc biñ benee ba war laa bàyyi. biñ lay bàyyi lu la wax ne lii moo tax ñu bàyyi la. mais bi ñuy bàyyi moom mos wax ñu ma lenn tax ñu bàyyi la na ñëw rek ngeen loolu rek nga ci am. loolu rek laa ci am. nga yeewu rek ñëw la. jëlal say bagages. Serigne Saliou. waaw garde bi moo ñëw commencé appel. Mhm. bi mu commencé appel daal sëriñ Serigne Fallou fekk sama xel maa ngi doon am ko ma doon waxtaanal. Mhm. sama xel nekk si moom dégguma ko. Mhm. mu ne ma ana Serigne Fallou Diom ma ne ko ma ne ko président mu ma yow dafa mel ni sa tur sax dafa bokk si liste bi ñoom. ma ne ko ah xëy na boo ko waxee rek noonu la dem parce que seeg yéen yéen a yor liste yi bu waxee ne sama tur mi ngi si kon xam naa kon noonu lay demee. Mhm. si laa ne ma ko waa maa ngi yéeg. Mhm. boo si amee lu la leer nga soog ma ko wax. Mhm. si laa yéeg dem commencé préparer sama bagage. parce que bu fekkee ne sama tur ñëwutoon foofu xëy na du ma wax. du la wax préparer bagage yi rek. avant may pare yi si la garde yi ñëw. daan may woo. ne Serigne Fallou Diouf tey da ngay génne. waaw bi ñu la waxee tey Serigne Fallou da génne. ba yëg-yëg nga am. waaw yëg-yëg boo xamante benn bëgg naa génn d' accord. a dama doon ñaanal suñu président laa yéene woon mu njëkk a génn président Ousmane Sonko. Mhm. moom laa yéene woon. doon nga gis foofu mu génn. non daawuñu ko gis parce que. xamal nañ fi mu nekk waaye waaw xamal nañ fi mu nekk. mais bokkuñu woon kii bokk moom ñun rëbës lañ nekkal. Mhm. laa gën a yéene mu génn. Mhm. mais yàlla dogal na tamit li taxan sama génn gën a metti mooy dafa am ñoo xamante ni dañoo nekkan sama ginnaaw. daanaka si sama liñ may yónnee si la ñuy lekk si la ñuy def mu doonoon lu diis man torop ngay ma leen di bàyyi xel nga xam ne soo génnee ñoom doon lekk dinañ métti dina métti torop mhm. xëy na dinañ lekk ndax yàlla moo yor dund mhm. waaye dina métti mhm. euh, beneen bi am ñoo xamante ni dama leen doon jàngal foofu alxuraan ci biir prison ci bi ñoo xamante ne xamuñu woon waaw Sambour 47 di leen jàngal alxuraan foofu di leen jàngal bi may bay waaj ñëw suur bi ma ñëwee am na ku ma taree xam ma ba ñoo koo xamante ni maa ko daral ñeneen ak ñeneen li ma fa jàngal bëri na ñenn ñi xamuñu woon ni ñu jullee yàlla dogal ñu daje ñoom jàngal leen ni ñuy jullee hmm. ba ñu soppeeku completement di toog si hmm. kuréel loo xam ne mosuñu woon toog si kuréel waaw si cinq mois yi ma hmm. moo taxit ni génn gi doon lu diis man torop moo taxit génn naa mais sama xel tamit day dayanti xalaat toujours toujours maa ngi leen di ñaana te lépp lu nga xamante ni tamit dinaa ko man dinaa ko man di kontiné sama yéne ci ñoom. ci ñoom ban ban ban métier nga amone bala ngay dem fofu ya ngi won sa métier. waaw ma ngi won sama métier ma ngi soudeur la doon def. soudeur métallique waaw. kon bu fi ma tok di wax ak yow waxu ñu li mo tax ñu libéré la da nga gis ñu gënné la. dara taxul man kay man dama leen wax né man bu ma amoon ñu ma taxaw laaj leen lu tax ngeen libéré ma dinaa leen ko laaj. ñu leen ko laaj. parce que xey xey xey nañ ma fa duggalé won xëy na génn bi sax mo gëna gaaw. parce que ba nga ma dugalee foofu sax la nga ma ci roq yu bir mais génn bi dafa melni dama la doon dañ la doon xatal. ci mhm. saa rek genn ñu ci noonu. nga génn waaw fa nga jaar ba ngay dugg jaar ba ngay génne. waaw jaar ma fa feneen benen buntu la ni ngay genn signé woo ay papier. non signé ma benn papier. dañ la rappelé rek nga genn dem sa yoon. waaw bi nga genné buntu samet ba gisat Dakaru Ndiaye. Mhm. gisat air bi manam foofu amna air sax manam mu wóor na amal nga sa liberté. Mhm. nan nga njëkk sentir. lima ma njëkk a sentir ah, sant yalla rek. parce que dama ne ma njëkkee wax dafa ne parce que. nit bu la yàlla tegee nattu bu dem ba teggu mënoo def lu sant ko mhm. waaw mais nag dafa mel ni dama jàppan ne tamit li ñu fa dugal nii mën nañu faa yóbbuwaat parce que fële ñu nekk am na si ñoo xamante ni buñ masaa taal dañ daan wëlbatiku contre ñu di jël ay yat di leen dóor ak kii ba ñooñu di daw mhm. tey jii ñooñu ñu ngi si prison yi mhm. benn maa ngi lancé message boo xamante ni euh, ñi nga xamante ni ñoo demal si gaal yi te yàlla dogal àgg ñu ñu jàpp yi sonn fa trop ñi nekkoon ci gaal yi ñi nekkan si gaal yi ñu jàpp mhm. refule leen maanaam ñi ar indiwaat mhm. ñëpp ñu ngi si prison yi mhm. ñenn ñi Maroc la ñeen jàppe ñenn ñi saint bi la ñeen jàpp ñeneen feneen ñoo xam ne dañ doon dem Espagne ñëpp ñu ngi si prison yi te nag du dëgg ñuy téye koo xamante ni dafa deman di tukki nga jàpp ko te parce que bu dëkk bi neexal ñu war a àgg fu ñu war a àgg kon jàpp naa ne kon lii fii ñu ëgsi duñ fa ëgsi ñuy xamal sénégalais yi ne leen ñun li ñuy xeex du suñ bopp xeexuñu ko pour yàq ñun duñ ay yàqkat mhm. te doonu ñoo xamante ni xamuñu fu ñu taxaw xam nañ fu ñuy taxaw am nañu liggéey am ay soxna am ay njaboot mhm. suñuy njaboot yi ëllëg la ñuy xeexal mhm. te nag lépp loo xamante ni ëllëg day defal dëkk bi ñun dañoo pare pour dugal si suñu loxo parce que dëkk bi duñ toog di ko seeraan ay ñenn yàq ko ba pare wëlbatiku nga dem Maroc toog wala nga dem feneen toog wala nga dem France toog wala Allemagne suñu yoon nekku si ñooñu ñu mën koo defar. donc sëñ Fallou lan ngay tàggoog askan wi. waaw di nuyu rek di nuyu sénégalais yëpp di kontaan bu baax si taxawaay yu rafet yi ngeen di taxaw di nuyu tamit euh, Pastef ex Pastef bu xam naa ne dindi nañ ko mais dindi bi sax bu ñu yëgan bu ñu xamal ne fii la mujj duñ ko dindi. Mhm. parce que tey la ëpp doole tey lañ gën a mànkoo te nag fee bañ fa nekkee heure bu ñu génnee si Ousmane Sonko la ñuy wax ba duggaat si biir. Mhm. kon nag dañuy xam ne ñun lii suñu boroom def. ñu dañoo bokk si jaam yi ko nangu. Mhm. waaye tamit doo bokkuñu si Sénégal yi toog di seetaan. waaye ñi ngi nuyu ñëpp di nuyu euh, di ñaanal monsieur le maire Pape Sow. Mhm. di ko nuyu bu baax di ko siyaar. Mhm. mais moom taxawaayu rafet la nekk di taxaw si détenu yi nekkan foofu. am waaw di ko siyaar di ko jox wàccuwaay bu baax a baax nuyu képp koo xam yaa ngi doon bàyyi xel ñu ngi doon bàyyi xel à travers MPROD TV gars yi am leen jàmm su d'autres rendez-vous sur su TV la chaîne fois. ImproTV, la chaîne du renouveau.